ak Zo Beauty Cosmétique mooy sunu choice yow. cabinet borom baax moo baax ci jigéen.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

Absa. waaye. ñëw nga si hmm. woon naa loolu sax xamatuma naa la la. Absa yóoxu ku yoo xam Abbas démb gént Abbas tey loolu lu mën a nekkee lenn xam naa. sa digganteeg Abbas moom booy boo ñu xool ko ci teel balaa nga ci gën dugg. ah waaw bu jëlee li saxaar sax dinañ ko li saxaar xool ci ban famille la bopp ak ci gan xeet la bopp yow nooy mën a xamee Abbas démb euh, bët set nga nekk di yuuxu naan Abbas Abbas am na loo xam ne xel nangu ko. baax na hmm. baax na waxee nga ne ma baax na mais diggante bi moom dinañ ko li saxaar bala ngeen a dem fenn fenn fenn fenn xool ndax seen rawaan ànd na. nga seen wërsëg dëppoo deppone geussu ko daal xol ci ban famille la bokk ak ban xéet ndax man yi mom anduma ci te dëgg ko di di yuux mel na ku dara dal ah waa baax na Ça va bébé Ça va. Nak sa journée tey. Sonn rek, yaa ma gën xam. Fi la fekk da ngay sonn yow.

benn façon jigéen bu nekk gis naa fu ne dem naa mais mosuma gis ku mel yow premier jour mu la njëkkee gis li ma sama xol mosuma ko yëg ci benn jigéen te dama bëgg nga xam ne ay eh, caaxaan taxu maa jóg te nii suñu mam awa na ko yàlla defaree suñu maam dama yaakaar la yàlla defaree lay pour mau baikin untuk sini kayak teman ya. Wah emang ya, oh, kami sih emang ada teman sisu. Kamu nunggu lagi sih nama top medi di luar. Kamu nggak bisa mau diganti kayak mau gak nafar bos mau ada apa? Kulo gis fobi dong. Iya. Bah nurek. Antu kali nggak usah mau foto. Kali gini kan ini bayi begitu endah bitok rate antu. Kali jadi situ di sana. Iya. そういうことか Ah ouais, elle est très belle. Hein. Ah ma fille, tu es toute mimi. merci beaucoup. Condamnation. di la bu yow sama du Sénégal. <laughs> maman. xam len, la xamal len. sama dom ji Abass bëgg na la bëgg na la de. ma bëgg ci tamit. ah dëgg la du dëgg buggoo ko. Ah, xam naa ni lu tax nga ñibbi si Sénégal moom mi ci la bokk. nekkoon man lii sa ndey kese nga ñibbi si Sénégal. ok ok ok am benn problème d' accord. waaw xëy na taw. non t'inquiète bàyyi ma dugg ci biir yow kay xase gi ma fas yi bàyyi ma dugg ci biir balaa ngay gën a wax. <laughs> bul wax loolu xam nga ni yaay sama xarit naa laa namoon loolu moo tax mais t'inquiète. ah d' accord ñu ngi ci biir incha allah ci kanam ok maman waaw ok ciao. ne bi rafet na de. waaw gis nga de ins bi nag jabar rek moo fi manqué. jabar kay baax na. léegi looy rëy ci loolu. ah dara. gisoo gisoo fii sa bopp. fii. ok. voilà donc bu yéexee yaa ko yow yaa ko yéexal de. man nag tey aw ma envie toog fii quoi. j'aurais préféré ñu dem resto. resto. te nga ñëw ñu toog fii rek.

maman man na la Abdoul waxoon que dinaa fi ñëw. oui ma fille. ok je me rappelle. waaw wax nga dëgg kay. ci la nekk. maa ngi si jàmm. ça va. ça va bien. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax alhamdulilah alhamdulilah. bismillah. lii ay tusi la. Lico como? é como jenerek. Mami. E o que? Ah. Lico deixa. Ya como? Ah, para o homem. Para ter para como? Dia é como? Ya como? Lina. Ah. E biju anorla. Ngani mo? Ay é fasile. Amna é né? jao. Amna shen aussi. Amna do jao aussi. kan moo moom lii. lii yëpp yaa ko moom man mii. man mii jéena ba konaate maa moom lii. yaa ko moom. ah. fekkee tuuti na sax nag. ah fi kontaan su ma sañoon ay millions laa la fi indil. lii nii maa ko moom. am lii nag bëriwul jëndi ko déedéet naan nag. <laughs> kontaan naa si yaa ko moom. bismillah bismillah sama doom. toogal bu baax lii yëpp maa ko moom. lii yëpp waa doom lu waral lii yëpp. man de xanaa bëgg sa doom rekk bëgg Abbas mu jaral ma lu nekk nag ci àdduna ndax am naa ko mën naa ko te sam papa lu mu joxeñ mu dagg je suis sa préférée te benn mii benn bu jigéenam bii lu ma bëgg rekk bëgg na ko waaye Abbas gisul loolu dafa topp ab sa bii nga xam ne pauvre la bu añee du burere, bu reeree du nek te man nag mu jaral ma lu nek loolu rek mo taxoon ma dal fi fii ngay ma la yow. billaay loolu la demee de. ma fi na sa xel dal bu Abbas rek melal ni jot nga ko ba pare man dina wax ak Abbas Abbas dina bay Absa si ni wala ci na yow boo nelawal. sëgg xooloo xanaa gisoo li mel jamono ji kenn soxlatul cas social man góor ñu mel ni yow laa mën a defante xanaa gisoo élégance bi nekk ci yow kontaan naa ci yow boo demee tëddal te boo tëddee nga nelaw. maaleykum salaam. ça kay kay dam laa soxla. kay dam laa soxla kay toog. toogal li nga xam lan la yaa may xool bu baax. yow xam naa li man réew ma réew ma de yow Abbas loo ma yabee. yow loo ma yabee ak li may représenté si dëkk bi yëpp. ah léegi nga xam ko. yo amul koy no bantel kudul ku dul bu jigen bo xamanteni wala kan yorul dara bu añee du ndekki bu ndekkee du reer yoruñu tous yaa bo xam ne jaay ndekki yoruñu tous ko ngay bëggantel yo yaama bet yo Abbas bet nga ma nak bet nga ma nga xamni cas social la. bet nga ma de. li nga ni ko jëlé fa la kay jëlé ak fi rew mi toobi dama ni nga bayyi ab sa mi nga topp wala kaan yorul dara nga jëlal ma farida mais macha allah xale bi jekk na macha allah te yor na te am na xanaa gisoo yow di nekk si table bi yow yi gisoo ko nga bi farida moo ko sotti ci man ay or ay dra ay mbubb yoo xamante ni macha allah man farida laa mën a wut farida macha allah dafa ñëw si man jiñ ma teranga kon maa koy delloo teraanga bi ba mu mot est-ce que yaa ngi may dégg. soo bëggee dégg dégg daal mooy que ni danga may jaay non danga may jaay. xoolal jàppee ko nu la neex. d'accord mais man Farida laa wax. xam nga ni yaay jox naa la cër trop respecté naa te teg naa la foo xam ne teg ma fa kenn mais wàllum sëy du alal sëy koo bëgg nga mën a nekkal te <sighs> yaa doon nekk duñu wax naan ñu ak lu munti doon nañ déew ak suñu góor Farida tey jii. lan la mun a jox loo xam ne amoo ko woon lan la mun a may loo xam ne amoo ko woon bu doon voie facile bi rek du ma fi nekk di jógee Sénégal dem ba Maroc ñëwaat fii pour léegi su ma fi ñëwee yàlla ak ab donc ñëwuma fi pour ay faridaat wala keneen. bu la neexee yaa ngi dégg li nga wax nga ni boo ñëwee fii yàlla ak ab kon du si man mii sa ndey ji. kon ab sa fu mu la yóbbu kenn xamagu ko des na lu ci kanam rawul bët.

Dieynaba jugal xam yu rëy yii Dieynaba Bal joge bilaay busu du loolu xam du mbégte moo tax sama xam bi de ah man kay instant bi nii fi mu toll nii gàcc moo may rey gàcce gàcc moo tax ma xam bilaay wallaay Dieynaba lu xew ba gàcce di la rey gaawe ma mbaa jàmm lu xew dañ ma waxoon fii mooy kër ñoom ab sax Iya, waaw seet si Absa pour mu bàyyi sama doom Abbas bàyyi sa doom Abbas billahi loolu mau waroon sama tànk moo tax Jeynaba Jeynaba kon yow yaay yaayu Abbas Mami mii mau may yaayu Abbas ah àdduna di tuuti na dëgg billahi léegi lan moo taxoon nga bëgg ñu bàyyante bu so loolu amul solo garaawul loolu amul solo loolu bàyyi ko mu jàll léegi kay fu mu nii comme que yow yaay yaayu Absa yu fexee bu ma suñu doom yi ñu sëy benn yoon balaa jàpp ci dugub instant bii nii loolu mooy wax ci waaw ah loolu moo nekkoon samay tànk moom kay moom yi xaw sax fan laa nekk nii billaay gàcce bi ma am. déet Dieynaba bul wax loolu. fan laa koy waxee billaay. loolu du gàcce bul wax loolu. yaay expliqué ma lan moo xew man comprendre ma dara. man de damaa ñëwoon fii ab salaa doon seet. ma gis busu ma xam. xam lan moo la war a xam lu. Abbas. sa yaay da xam nga fi ba xam lu loolu laa sa xorom. yàgg sa xorom nag te du denc moom benn yoon yow gis nga sa yaay bi maa moom bi ñu nekkee xale ba tey ñoo doon ànd Thiès ñu nekkee ay xale yu ndaw ñu doon ànd primaire sa suñu enfance yëpp man ak moom ñoo ko defandoo papam ak sam ay collègue lañu woon chemin de fer Dakar ba moom dama yàgg ak moom mais dem nañ ba benn instant ndeysaan ñu daal di réeroo ñu affecté papaam amu amatuñu benn coordonné man ak moom lii moo waral suñu tàqalikoo mais boo gisee ba gis nga ma buso nga gis buso gis nga ba bañ na ko ba koñ bi dañ doon wax ñaar ñi ay seex lañ mais gis nga li yàlla di def tey yàllaa na woon su ma sama gisante waat ak sama seex bi ci yéen ñaar ñi lay jógee donc sant yàlla ah jeyna ba alhamdulilah parce que man bi ñu ma woowee ni ma sama yaay ñëw na kër ab sa na fi xalaatoon naa lu ne mais kon nii la demee rek nañ sant yàlla bu baax. alhamdulilah. <laughs> léegi léegi daal wax ji mooy lan lenn mooy mooy wax ji ñu may leen yow ab benn yoon te dafa gaaw balaa ca di si dugg. <laughs> waaw na gaaw de. yaa yaa wax loolu. <laughs> maa wax loolu jeex na tàkk. lu baax lu baax du baax ba weesu baax waaye cabinet borom baax moo baax ci jigéen sagal jigéen ak kabine borom baax da ngay mel nu la neex soo bëggee yokk sa yaram def jongama jëlal gamme complet Layla ak gamme complet Layla bii da ngay def jongama bu ne muut foo romb ñëpp xoolaat la soo bëggee yokk say ween wala say hanche kese am na Layla jàppal sa yaram 15 jours rek laa la may ngay fël di la à base de plantes naturelles. 15 jours rek nga gis résultat té amul effet secondaire cabinet borom Pekin Technopole deux voies Arrêt nationale téléphone 118 115 34 88 wala 116 018 42 41 118 313 23 24 Touba. 77 913 71 01. mais booy. waaw bis. wuy ma xam nga bëgg. Mhm. suñu mariage yow laa bëgg nga jàppale la date <laughs> mu koy jàpp. lu hmm. may de 13. será la date idéale pour votre mariage. mais booy 13 am si não dégg ni baaxul o def mariage de. yow booy yooyu eu kasaw kasaw yooyu da nga kaa gëm ah mas bom não sei jamais ah. mais bon d' accord. yaa ma ko le 13 jegewul. o baax na def naa déglu seen idéal o mu. waaw dañ vai bàyyi le 13 am. oui ma yaa nag may bu njëkk não duuna duuna duun laa lay préparé. namor. Tá hum. Japanica era gana especial, gana lazy dia, hum. gana jok jekero, gana prepara. Benar mah? Prepara turun ni kan? Turun lah. Antren dia le. Bang. Ki hola antren mas, tu mesti gini. Hah? gis boo xamee sëriñ Ba ay cumukaay wax ma parce que si doo xam naa géej tefes gi instant yi mooy sa tumukaay tefes gi nga dugg géej géej léer laa si yow doo nit quoi waaye baax na am problème daa ko jeex ngay takk yow le treize man le treize treize ñu ko ko def ça va yéen ma boole adresse baa ngi nii li ngeen soxla mépp mi ngi ci li ma leen sant nag guddi ngeen ko mën a def su génnee doxantu ji wala muy jënd fonde ndax moom amul lu mu lekk fonde lay lekk man nag duma ab saa lu ma leen sant bu amee benn faay dinaa ko lijjanti ak yéen. loolu tamit lan la. ay gannaaw yow ma bëggoon viol. bëgg la Absa dañ laa kii Absa. déedéet ni ma xool Absa. Absa kenn deful dara. Absa defuñu la dara. bu ma doon yuuxu si la sama benn grand dégg massa massa massa. ñoom moo mel ni basi waay waay waay waay lii nag nag dëgg nag kenn ay waay borom réew mi war naa wax ci dëkkam bi de dëkk bi wóoratul de boo génnee ñu agressé sarata fi ne moom dañ cee boole violé massa waa noppi noppi noppi yaa booy bu la dara jaaxal yow kenn jaar ci yow ndax man mii sa dama laa ñaanal dama laa jël dem nga kër Absa te man mosuma ko fa yóbbu donc lan nga def fa xam foofu non non non mënul nekk li may xalaat non non non lii mënul nekk abdul abdul Abdoul sañ na def lii non lii Abdoul kese la mën a doon quoi mais xam naa lu may def. ñii tekkiwuñ dara tekkiwuñ démb tekkiwuñ tey. ñii ñaari góor yàlla ñaari góor yàlla nan la leen nit mën a tawee buñ déroulé woon plan bi comme ni ma leen ko waxee violé ab sax kon mariage bi sama plan yëpp mat mariage bi laay yàq mu daal di jeex. yii jànk te nga bàyyi mu sedd. bàyyi mu seet man duma am kuy am defet nuru naa la man kuy am defet man mi du ma kuy am defet Absa ak Abbas dinaa leen dëddale ci ne ci Pa Amidou Samanke falaa jëm ñii bu ma baree ci moom danañ mel ni xajut muus Abbas moom fu Absa aw dootu fa aw te Abbas lu ma ko wax suba ba ngoon jot loolu lay def ci samay waaw lay wéy par la force nag waa jànk kaay kaay ñu waxtaan waxal nag est-ce que tam comprendre loolu ni ñii yàlla dafa tudd seen diggante ba pare tudd seen diggante mooy lan yow seeg moom fii war a ma woon jox numéro may soo comprendre xarit góor yi jigéen musul am man loolu yëpp loolu yëpp mën naa ko tegee côté mais yow booy xalaatuma woon ni booy tuuti nga nii booy booy jël ay góor di ko yebal si ab sa pour ñu violer ko waaye dimbali ma ngay naan ay a triste xaw ma looy yi ni ko noo ko mënee wax. mais yaa ko def moo tax nga wax sama càmm sama yaay bu muy dem këñam ab sa la xamee seen kër musu ko xam yaa ko fa yóbbu booy Farida amul woon sama numéro yaa ko jox mu may envoyé ay message effectivement loolu yëpp nan la mën amee. booy yow vrai défaillant nga nag ndakate booy détrompe a frère yow man Absa est comme une sœur pour moi nan laa ko mën a defee yëfu dëmm yooyu yow. loolu man sama yoon nekku si j'arrive même pas à comprendre xam nga fu ko fële def nga li ngay def ba pare yaa ngi nii di yow je te jure que bu ma jógee fii damay ànd ak Absa dem porter plainte. plainte laa dégg. histoire bi noonu la demee. li ngeen wax yëpp dégg naa ko waaye. nga génnee ma ci dinaa la def sama doom di foo ak yow di la napp nappee dinaa la def sama soxna aussi dëkkoo la dëkkal la te lépp loo soxla ma defal la sama baay sama xarit sama frère sama kilifa ki la def sama baay di dox ci say waaw di bàyyi say tere ngir sàkku sa ngërëm saa su nekk dinaa la def sama doom dina nabb na bee doo xiif doo mar te doo rafle dinaa la def sama jëkkër nangu nga doon sama kilifa ngir def sa bànneex saa su nekk <laughs> mon amour jigéen bu ne gis naa ko mais yow yaa ma doy moo tax ma tànn la nga nekk sama soxna góoroo góor yaa ma si gënal en tout am naa ci yow yaakaar que día de acá. lo